soxna Jaara sa wey ñoo ma jëmal boppam soxna Jaara moo di ba mi des di feeñaat teeram wa de foofu ndaw soxna Jaara bu génn soxna Jaara kon ñu yàlla na fi des yàllal yàlla yàlla jox barke soxna jaara aoudu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahabatihi wa taabiina lahum bi ihsanin ila yawm ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa jaal kalaami wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida ilayka tubtu tawbatan nasuha wa lisaani fi rida fasiha mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñu ngi dellu si di leen nuyu nuyoo bi gën a assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu ginnaaw nag bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala tey ñaan mu julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye di yeesal sunu pas-pas ak sunu jaayante ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul tey ñaanal mboolem njabootuk Serigne Touba gépp te ciy jiital ak Cheikh Sidil Muxtaar tey ñaan sunu borom mu gën a dëgëral taxawaayam ba naal yi mu naalal lislaam rawatina yoonu sëriñ bi mu àggale ko fa kawe njortam te mu ànd ko ak nun waaye mbokk yi saa yu nekk ñuy am mbégte ak yéen ci seen émission bi nga xam ni taamu ngeen ko baaxoo cee ànd ak ñun waaye di leen jaa jëfal mboolem taalibe yi fu ñu mën a ne safo gu ñuy safoo seen télévision mu fàttun Bichri ni ma koy waxe saa yu bëgg gu bëgg Serigne Touba bëgg gu bëgg lislaam te mooy Serigne Touba tax na liñ leen dikk donte joxuñu leen lépp teewul saa yu nekk ngeen di safoo seen télévision Mafatihoul Bichri loolu nag amel nañ leen ci ak kon ndax nit lu muy def lu ne ci lislaam bu sañoon dafay tasaaroo kit ki nga xam ne nag moo koy taataan saa yu nekk di ko settantal di ko jéem a jariñoo kooku amel nga ko ak njukkal moo tax kon ñu ngi leen di jaajëfal waaye di jiital ci nuyoo bi ci anam googu jëwriñ ji nga xam ni boole na dooleem xelam xalaatam man-manam lépp ngir jëmmi lislaam ak Serigne Touba te mooy ma Madiama Mbaye di ko nuyu di ko jaajëfal ndax li mu def lislaam la ko defal waaye Serigne Touba la ko defal saa bu nu ne Serigne Touba lislaam lañ ci jublu ndax moom mooy lislaam kon mboolem ñi nga xam ni it ñi ngi yëngu ci seen télévision ma Fatul Bichri ak fu nu mën a ne ñi ngi leen di bàyyi xel saa yu nekk tey rafetlu li ñuy def moo xam ñi nekk biti réew la moo xam ñi nekk ci biir réew mi la ak fu nu mën a ne ku lim da ngay jum waaye kenn ku ne yëg nañ sunu xol cofeel gun la amal ak cant gun lay cant ndax jàpp nañ li ngay def nun nga koy defal kon ñu ngi leen di sant tey nag ñu bëgg a waxtaan waxtaan wu am solo ci waxtaane koo xam ni duma ko tudde waxtaan ndax waxtaane ki nga koy def mooy koo xam te kii nu bëgg a wax ci moom xamuñu ci moom li tax xamuñu ci moom mooy fi mu doon dunde dafa weet ñam doon dundal bariwun ak dundam daa gàtt ci ay at histoire préparé wul ak dundam ndax jàpputoon ni dana am ku mel ni Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kooku mooy kan mooy soxna Mariama Bousso jaariyatullah di jëm joo xam ne fu ñu ko tuddee lislaam si giwaat fu ñu ko tuddee xel dem ci Serigne Touba xaadimu rasul ak ak njabootam fu ñu tuddee sëriñ Touba mu doy sëkk ñu tudd ci ak njabootam fu ñu tuddee Serigne Touba mu doy sëkk jëriñ ñu ci tudd keneen ndax ñooñu ñooñu ñam am ñëpp Serigne Touba ëmbaale na leen kon ab sagla ci lislaam jëmm joo xam ni lislam da sagoo ba fu ñu ko tuddee lislaam bu doonoon nit ku sëgg la dafay siggi yëkkati ko firi daal di ree muñ te xam ni tuddu nañ ko ko sagal kooku nag nit dañoo baaxoo bala ñoo wax ci moom wax ay waajuram ngir xamle askan yi mu jugee ñooy ñan ngir kiy seetaan mën a xam ni mbaax gi nekk ci moom donte ni am na ay effort jomb jomb ko waaye it waxtaane kooku it dafay metti dafay tiis ndax mooy ah, ku nag ci sa gannaaw pas-pas xorma bi nga bëgg a am ngir jox ko ko boo ko bëggee waxtaanee dafay metti ci yow yow mi nga xam ni ah, sa pas-pas mooy kii di dawam di Serigne Touba Xaadimu Rasul kon lépp loo xam ne njuumte la ci ñi ngi koy jégalu bala ñoo tàmbali loo xam ni it nur na nu demee na neen jubluwuñ ko ci woon waaye waxtaane ko dafa tiis moo tax. kon ñu ngi ciy jégalu bala ñu cee dugg maam jëmm jooju nag kii waajuram mooy Serigne Ahmadou Bousso Serigne Ahmadou Bousso euh, mi ngi bokk ci waa Mbusoobe ñu xam leen ci jàngal Alxuraan ak jàngale ko di askan woo xam ni kenn masu leen seen ci lu ñuy xeeb kenn masu leen seen ci lu ñu yeddee taxawal lislaam xawal diine jàngale Alxuraan moo mas a nekk seen dund moo masa a nekk seen noflaay seen guddi ak seeni i dañu ko daa jeexal ci dundal lislaam ak jàngale ko waajuró mu jigéen yi di di sama maam asawaala Mbàkke buñ ko tuddoon rek mu doy sëkk moom tamit kooku mooy kan mooy ki nga xam ni dadaa tàggat ak njabootam ci jaamu yàlla mën naa ni nii soxna si mel ci moom la ko jëlee ndax moom foo ko masaa fekk mu toog dégg naa sax wax nañu ni ci aswaar ni da nga koy teg góor ndax jàllaa la daa sol te fi muy toog fi toogee ci suba gi bala fa faa jógee jant bi daa sox te lépp da ciy nekk ci jàngale alquran jàngale alquranul karim ci jàngale xam-xam ci yare guddeeg bëccëg soxna Aswaalu Mbàkke moomu nag mooy doomi maam Ahmadu soxna Buso mi nga xam ni mooy doomi maam Maharam kon soxna si waajuram yooyu yëpp dañoo delluwaat ci Maharam ndax soxna si bu soobe mooy néegub baayam mbakke moy néegub ndayam mooy néegub waajuram bu jigéen Serigne Touba bu soobe mooy néegub waajuram bu jigéen mbakke mooy néegub waajuram bu góor kon mook soxna si ñoo bakkaat lépp ginnaaw bu mu nekkee waajuram waajuram bu jigéen yooyu dañ ko jàmbaare ci xam-xam ndax daana yoroon na daara ju mag daa jàngale alxuraan soxna Anta Ndiaye Mbacke mii di waajuru maam Cheikh Anta bokk na ci ñuy génnee ci daaraam te moom du ñàkk danañ tudd ci moom tuuti ngir wane eh, moom tamit ni jàmbaar la woon joo xam ni soxna si buñ ko tuddee day muur ñëpp ni nga xamee ni bu ñu tuddee Serigne Touba mu muur ñëpp waaye teewul soxna Anta Ndiaye moom jàmbaar la woon joo xam ni bokk na ci ñuy génne ci daara yi Serigne soxna Assawaalo mbake gannaaw loolu it. ay mbokki boppam rek la soxna si daa dund ci biir mbokki boppam ndax soxna Anta Ndiaye Mbàkke mii ma tudd moom doomi sëriñ Ibrahima Awa Ñang la sëriñ Ibrahima Awa Ñang doomi maam Maharam la kon sëriñ Ibrahima Awa Ñang ak maam Ahmadou Soxna Bousso ñoo bokk baay kon soxna Anta Ndiaye Mbàkke ak soxna Assawaale ay doomi baay lañ kon soxna Anta Ndiaye Mbacke waajur la ci soxna si waaye teewul soxna Anta Ndiaye Mbacke mi ngi yaroo ci sëriñ soxna Asta Walo Mbacke soxna Fatou Issa it waajuroo mu jigéen bi nga xam ne mooy moo ko jur mooy soxna Afsatu Mbacke soxna Afsatu Mbacke doomi maam Ahmadou soxna Bousso la maam Ahmadou soxna Bousso doomi maam Maram kon ñoo bokk menn maam. kon moom da doon dund ci biiri bokkam dundu ci sa biir bokk lu jafe bu dee it soxna sëriñ bu soobe mi nga xam ni ñoo bokk baay moom it moo bari na fu mu nekkoon ak moom ba ci dëkk bii nga xam ni fi lañ mujjee dem te mooy Poroxaan danañ ci ñëw ci kanam incha allah ci la ñoom ñoo ci bokkoon nekk kon dundu ci sa biiri bokk la doon def muy lu jafe waaye it mu am dundin wum ca dund ba jàppe leen noo xam ni ñëpp ay waajur leen jàppe ñëpp mu du leen lor ci loxoom du leen lor ci làmmiñam du leen lor ci ay bëtam waaye du leen lor ci ay tànkam kon du leen lor it ci ay noppam soxna si ñëpp la joxoon war ma joxoon leen gëdd ba taxoon ñëpp wekk ko bëgg ko it ngir jëmmi yàlla képp loolu di lu solo turam it mooy maam soxna Mariama bu woowu moom lañ ko tuddee woon tudde ko it sayyidatuna Mariam ñu tudde ko sayyidatuna Mariam nga xam ne Mariam bu ñu doon wax li muy tekki mooy ab jaamukatu yàlla sayyidatuna Mariam mi nga xam ne mooy waajuru sayyiduna salaam moom sayyidatuna Mariam alayhi salaam waajuram dafa nasaroon ni su amee doom dako ko mu ci jaamu kaayu yàlla bi mu toog fa di jaamu yàlla bi nga xamee ni yàlla taw féexal na ko doom ja mu koy wax xëy na mi ngi doon wax nag bu sañoon góor la la bëgg am waaye góor ak jigéen bu ci mën di am it da koy yóbbu rek jaamu kaayu yàlla mu toog fa di jaamu yàlla bi nga xamee ni suñ borom féexal na ko soxna su tedd sii nga xam ni mooy sayyidatuna Maryam alayhi salaam mu daal di koy ca jaamukaayu yàlla fa mu sax fa di jaamu yàlla foogulanteeg boromam ak wetal boromam ak jàmbaar gu mu jàmbaar ci diggante ak boromam moo tax ba suñ borom defal ko doom joo xam ni ci leeram la boo moom sunu borom subhaanahu wa ba sax bi mu ganee àddina ñuy wax naan maa kaana aboo kimra a saw in wa maa kaana tumki baxiyan sayyidatuna Maryam de waajuram ku baax la woon kon loolu dafay tekki ni dañoo jàppoon ne dafa am doom joo xam ni daa doon doom joo xam ne doom yoon doom ju sariya bañ fekk sax ñoom xamuñu ni woon mi ngi bàyyi ko ci leeruk suñ boroom waaye loolu comme ay nit lañ te xamuñu ko xamuñ suñ li leen yàlla xamal rek ci nit li mën a xam mooy suñ borom li muy def ci mbir yu mel noonu ñaare dafay am sabab te sabab bi mooy dafa am nit kum lay jaarale te mooy waajur wu góor war a tax nga gane àddina suñ borom nag ñaare moo tax liñ naan daanaka lépp lu ci bari ci sabab la koy teg ak raison ak logique waaye moom loolu sax amul ci mbiram amul sabab amul raison amul logique waaye dafa am ay sabab yu mu sàkk ci àdduna baaxoo cay jaarale mbir waaye du tee léeg-léeg mu wuute ak mbir yooyu ndax suñ borom bu ñu fàtte ni mooy xakim mooy mooy ki nga xam ni lu ko soob def te anam gu ko neex fa lay ko takkee fii man buñ ko takkee sow mën naa jaaree penku waaye du caagi ni bis bu set ci penku lay ñëwee déedéet ñoom nag ci anam xam googu loolu lañ jàppoon moo tax ñu jàppoon doom ji daa doon kon doom doom ju yoon waaye ndekete mi ngi bàyyi ko ci leeruk sunu borom subhanahu wa taala kon loolu day tegtale ni ay waajur yu baax yàgg na di dina waral nit baax waajur yu baax dina tax am meññeen mu baax walla wala baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi sunu borom moo ni képp ku bëgg gàncax gu baax dangay seet suuf su baax nga ut jiw bu baax nga jiw ko fa tey bay tey yaakaar tey yaakaar meññeet mu baax loolu sëriñ bi daana ko fiire firin wu rafet kon looloo tax ñaari waajur yu baax am na solo lool ci dina tax nit ki am leerum baax te baax dina tax baax yomb ko bari waana lu ñu net ci histoire koo xam ne waajuram daa noon koo xam ne ku safaanoo la wala yaasu mu jéem mbaax lool jéem ko jéem ba sonn moom doom ji du ko man saa bu demee ci borom xam-xam li koy wax saa bu ñu gëstoo ay waajuram gis ni waajuram yooyu ñoo ko tooñ ndax dañoo jaaroon ci waneen yoon wu bokkut ak wi suñu borom sam santaane moo tax kooku ba doom jooju judd ci moo tax kooku mbaax jafe ko kon moom ku suñ borom waajal la ci ay waajur yu baax moom moom soxna si gannaaw loolu it soxna sayyidatuna Maryam moom man nañu ni mooy sayyidatuna Maryam mii nga xam ni moom la ñu denc poroxaan li tax mooy sayyidatuna Maryam male ba muy dund amul bàmmeel ba muy dund amul bàmmeel su amoon bàmmeel wax ji day tegg ko waaye sayduna Maryam fanweeri at ak ñett la dund moom waajuru sayduna Isa fanweeri at ak ñett la dund amul bàmmeel mu dellu siwaat ci sow mboolem yi nekkoon penku suñ borom da ko indiwaat sow mu dellusiwaat ci sow bi daal di daal di fi dundaat fanweeri at ak ñett génn àddina ñu den ko boroxaan boo seetee it da gis ni woo kii nga xam ne mooy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba daa dondu Seyduna Isa moom alayhi salaam ndax Seyduna Isa sunu borom moo ni wa maa qataluhu kenn reyu ko moom Seyduna Isa wa sola buuxu kenn selebu ko moy di ko yeew ay pont wala ñu koy daaj wala ñu koy takk ay bum waaye bal rafaxahu llahu ilayhi li fi nekkee mooy suñ borom moo ko yéegal ci boppam kon Seydina Isa dafa war a ñëwaat waaye boo seetee jàngat biñ ci am mooy lu ñu la ma sa wax ci dundam dangay fekk Serigne Touba dond ko ci anam goo xam ne lu wér-wér lay doon Serigne Touba dafa dond mboolem yonent yi donduwaale sayiduna Isa na Maryam yit luñ la mas a wax ci ay jaar-jaaram wax la ko ci ay jikkoom wax la ko ci ay meloom da ngay fekk soxna si dondu loole ci xarfan bi xarfin amul dara lu ci wute ci melokaan yëpp te ku jàng histoire sayduna Maryam sayidatuna Maryam boo xamee du tuuti ci histoire soxna si da ngay xam ni moom dafa. dafa dafa dafa donn Sayyidina te sax danañ ñëw ci kanam kële nga xam ni bàmmeelam dafa reeroon soxna si gis nañu bàmmeelam waaye bàmmeelam dafa reeroon moom tamit kee nga xam ne amul bàmmeel xamuñu fenn bu ñu woon ñu ngi ko denc ci Yerusalem kon li ñuy wax day teggi ko waaye amul bàmmeel kon gannaaw loolu it soxna si gannaaw bu mu gënee àdduna ñu jàngal ko alxuraanul karim ca na mu gën a rafete mu jàng xa wala mu diine jàng na ba jàng muxtasar Cheikh Khalil téere bi nga xam ni bu ñuy wax littérature arabe moom soxna si am na ko mooy am na maanaam toll na foo xam ni ci xam-xam fa gën a kawe ci dayob xam-xam àgg na fa ci wàllu ulum diiniya xam ko daa ko te loolu di jafe bind ay kaamil yu bari bare bare bari wax nañ ni bind na ñeen fukki kaamil ak ñeent moom soxna si bind na 44 kaamil ñeen fukki kaamil ak ñeent dundu fanweer at ak ñett ku ci liggéey li ñu koy tuddal ci liggéeyu kër ci liggéey dox diggante mbokk ak morom ci liggéey di jaamu yàlla jàng alxuraan ak jullee ko woor ba àgg ci ma xam jaariyatu la soo ci mënee boole bind ñeen fukki kaamil ak ñeent loolu kii la waaye du effort boo nit di def moo tax bi muy ñëw kër Serigne Mame Mor soxna si mi ngi ñëwee mbake Bawal la ñëwee kër Serigne Mame Mor ndax taarixu jud ak gane ak addunaam ñëpp xam nañ ko 1833 moom la gane adduna joxe ci Fuuta la gane adduna waaye dëkk bi ko defee soxaluñu fi mu nekk nii gannaaw loolu yéen mi ngi ñëwee ci sëriñ Mamour Anta Sali fekk ko Mbàkke Bawol bi muy bi ñëw kër sëriñ Mamour Anta Sali boobu fekk na sëriñ Mamour Anta Sali mi ngi dëkk Mbàkke Bawol foofu sax am na lu fi xewoon si ñëw sëriñ Omar Foutiyou Tall boobu sëriñ Touba ganeegul àddina waaye dafa doon lu wër leeru Touba daal di jóge fii dem ba Makka yonent bi alayhi salaatu wasalaam feeñu ko xamal ko ni ko la ngay wër te mooy lalladi bi bakkata mubarakan pàkk bu ñu barkeel boobu ma nga sowu jant te moom ganeegul addina suñ borom wan ko mu ñëw nag ba mu gisee soxna si wax na ñun dafa ñëwoon di ko chercher ngir xam na ni leer gi si moom lay boow kon bi mu ñëwee Mbàkke Bawol ñu nekk fa ab diir yàggul dara ñu daal di tuxu fu ñuy wax nja dëkk bu ñuy wax nja nja sax soxna si am na ku ko fa daa jàngal alxuraan sëriñ boo xam ni soxna si jàmbaare woon na ci liggéeyu daara ji jàmbaar ba àgg ci sëriñ boobu sax defoon na ci moom ay bayit yu def ci moom yoo xam ne da doon taggee soxna si loolu di lu di luy wane ak njàmbaaram ba tey bi mu jigéen ci la dem ci dëkk bu ñuy wax euh, xuru mbakke xuru mbakke ñu bari miin nañ ko ci yoonu morit xam nañu ni pàkk la boo xam ni fala njabootuk sëriñ bi góor ak jigéen ñu bari tëdd ñi nga xam ne dañoo teeloon a jiitu xur mbàkke googu it li ñuy wax fa fala ko soxna si doon téela woon sakkat ba te taw boobu fekkoon ko fa xew-xew boobu ñu bari ci borom xam-xam yi nee nañu foofu la amee mooy sëriñ bi sëriñ ma Mor Anta daa woo soxna si mu ñëw fekk perub sàkkat bu mu doon defar ab xer xam nga loolu liñ ci war a gën a mën a jàngate mooy xer ab xer ki koy ki koy ki koy jàppalu ku mel ni sëriñ Mamadou Sali di defar ab xer xamoo ni booba amagul barke booba barke bi néew na kon su toogee ba amul kenn ku ko defar kon daara ja booba amagul daara ju mag ju am ay dongo yu mag yoo xam ni war nañ koo mën a defaral ay xeeri sàkket kon foofa barke daa néewoon booba barkeem da néwoon moo tax mu woo soxna si téyeloo ko sàkket wi waaye da nga fi déggee dégg ndigal lolu soxna si ndax la suñ borom waxoon ni jigéen moom na topp ndigalul borom këram loolu tax na bim ko téyeloo sàkket wi sañu saa jóge mukk lu dul ni da ko da ko koo bàyyiloo li fekk ñëwul rek ni ko bàyyi ko soxna si moom ala kulli xaalin day nakk ci téye sàkket woowu moo tax bi mu ko téyee ba euh, sëriñ Mamor dellu ci biir néeg bi fàtte ni sax nekkoon ci yeneen mbir fàtte ni sax xëy na am na doon na ko téeloo peru sàkket bi xeeru sàkket ndax bu mu duggee suñu borom daa dogal ngelaw lu bari ñëw ab taw bu metti ñëw ba mu ni téeloo woon na ko ko ndax nekkoon ci yeneen mbir soxna si it nekk foofa wax nañ ni dafa fanaan ak guddi ngir di téye loolu ngir li fekk ñëwut ba ko ba rek di ko ba ndax jàpp na ni loola rek mooy kon loolu war nañ cee jàngate it pas-pas bu rëy war jàngate ni daa jàpp ni téye gi mu ko téye mën na cee jëlee ngërëmul yàlla mën naa am téye gii tey tey tey ci lay jëlee ngërëmul yàlla kon loolu nit ki góor ak jigéen war na cee xame ni ndekete looy def ci jaamu yàlla na nga jàpp ne lii moo la mën a may ngërëmul yàlla tey tey jàpp ni jeneen jëf amul julul jëf yi su boobaa jëf ja dina sell jëf ja dina mooy loo toll nga def ko ci anam goo xam da ngay jàpp ni lu baax ci yow tey lay dakk lii mooy li ngay mujj a def ci lu baax loolu saa bu amee moo tax li ngay def ci lu baax day sell danga koy def ci pas-pas ak dogu moo tax jàppoon na ni lu mu toll day jàpp ne ci la war a amee ngërëmul yàlla moo tax sëriñ ba mu ko fekkee nag wan ni ko kon yaa ngi fii ba léegi mu ni ko waaw mu xamal ko ni ko jàppoon naa ni sax wàcc nga ko ba dem waaye ñaanal ko ngërëmul yàlla ñaan gu ñaana ko yéene gu yàgg-yàgg loolu di la xam ni Eh, lu am am solo la li ma doon wax rek ci leeral ci ni suñ boroom lam defoon penku lépp da ko indi sow mooy mboolem yonent yi li leen taxoon a ñëw mooy defar nit mooy defar nit ba ma nekk boroomam jële fi jikko ju ñaaw saxal fi ngor ak jikko ju rafet ak lislaam dëgg-dëgg lislaam mboolem yonent yi loolu leen taxoon ñëw bi sunu borom mi ngi yónni yonent yi ba àgg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jëkkoo yónni gis ni moo gën ci mbindeef fii mu yónni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu borom ba mu koy tagg taggewu ko dara lu dul jikko ju rafet la ko taggee taggewu ko ci mën a julli taggewu ko ci mën a koor taggewu ko ci saraxe yu bari taggewu ko ci jàng alxuraan lu bari waaye taggewu ko ci naafila lu bari waaye da koo taggee ci wa innaka la ala xuluqin azimin ya gën ñëpp jikko kon jikko la ñuy seetlu ni moo gën ci nit nit ku wax li mu war a am mooy jikko ju rafet jikko ju rafet la war a lamboo jikko ndax jikko kat mooy tax boo dee julli julli gi jaar yoon rafet mooy tax boo dee woor rafetal ko mooy tax boo dee sàkk sarax rafetal ko moo tax boo dee génn azaka dafe ko ci anam gu rafet moo tax boo dee xaj makka makkatal karam rafetal ko kon jikko moo jiitu ci lépp léegi nag jikko yooyu li ñuy njëkk a génn njëkk mu war faane mooy kañaan rëy naw jëf soxot bañ nit ñi xeeb leen yaakaar ne yaa ñëpp naw say jëf ngisal yooyu jikko la yoo xam ne ku mu nekk ci yow doo mën a am jikko ju rafet te kon faaw nit ki war a mën a am jikko ju rafet loolu moo fi indi woon yonent bi ba ci yonent bi salaam salaatu wasalaam bi mu ko indee nag jikko ju rafet ji gën ji gën a rafet suñu borom lëkkale ko nag inna diina indallahi lislaam indi lislaam muy diina ju rafet diina ju set diina juy woote ak jàmmoo diina ju woote dimbalante diina juy woote maandu diina juy woote weetal suñu borom tam tam rek tax bi nga xamee ni def na loolu nag daa gis ni yeesal moom mënta ñàkk yeesal mënta ñàkk faaw mu am ndax mbir suñ borom jëmmum ji subhaanahu wa taala moom rek moo dul ràpp waaye lu mu mën a doon dafay raaf lu mu mën a doon dafay ràpp kon gannaaw day ràpp lu luy ràpp moom la ñuy yeesal mu am nag ñetti anam muy islaax te mooy beesal li fi nekkoon muy Eh, ihya mooy dundal xam-xam yi deewoon muy tajjiit mooy la fi nekkoon nga yulli ko bañ xam ko Serigne Touba boole ñetti yëpp moom Serigne Touba Xaadim Rasul kon loolu di firndeel ni la newoon démb soowu yëpp moom la sunu borom la newoon penku moom la andi soowu mooy la amoon démb moom la andi tey mayem mayoon mboolem yonent yi may ko Serigne Touba mboolem natt buñ la wax ci mboolem yonent yi da nga fekk ci Serigne tuwa Yunus ak jënam ba Sayyiduna Ibrahim ak sawaraam sa yonent yàlla Muusa ak nitam ña noonu nga koy toppee di ko topp ci mboolem yonent yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak mbokki boppam ya yonent bi ak ñam jamonoon teeloon loolu yëpp da ngay fekk mu daje ci Serigne Touba Xaadimu Rasul ndax Serigne bi wax ni falay sa yujibu sawaadul jismi safahatal fata wa suu al nak gi ma nit ku ñuul wala gàtt gu ma ak jéego wala doyadi gu ma camsa mooy nekk nit ku xeebu bul jàpp ni nakk gu ma der bu ñuul tax ngay wan gannaaw sama mbir waaye wala tada nadmiya yaa nabilu li xadami ma aqulu wala tuqassis fadla rabbin qad ala bidi taqaddumin faqad fatajaala id rubbama urifatan muwaqara ma qaba am man qabluhu wa asura fattallu fattallu xayyabdu amama alwabli walfadlu lilwaabili laa litalli fala tanaasa hiina nadmi tasdari nassa hadisi nassa hadisi ummati kalmatari bul woon gannaaw bul jël ngëneel jagleel ko ñu ñi njëkk jàpp ni mujj moom ngëneel warul waruñ ko am ndax kat suñ boroom jagleelu ngëneel ña jiitu rek bàyyi ñu mujj waaw jëlee jëleelu ngëneel ñi mujj ñi ñi njëkk bàyyi ñu mujj ndax taw bi ñuy wax taw bi ñuy wax masay te mooy wicci cal mooy njëkk ñëw waaye waame mooy mujj ñëw te mooy ñoreel gàncax suñ boroom de dafa wax ni wa saabiquuna saabiquun ulaayka al muqarrabuun li mu njëkk a waajal moom lay mujjee andi Sëriñ Tuubaa nag bi mu demee ba mboolem ñooñu ñëpp jàll ba mboolem ay mujaddid jaar mu andee ko nag ci mu jug jamono mu dond mboolem yonent yi yore melo yi ñu yore woon yëpp daje ci moom loolu nag may la goo xam ni sunu borom moo ko ko may. moo tax mbiram amul sabab amul raison amul logique waaw amul sabab amul raison amul borom yi mu yebal andi woon penku yëpp da ko indiwaat sow moo tax sayidatuna Mariam male men sayidatuna Mariam moo am te mooy mii ñu leen ci poroxaan sayiduna Isa dafa dem suñu borom yéegal ko ci boppam waaye Serigne Touba mooy ki ko dond mooy ki nga xam ni mbiram yëpp la doon daale ak mboolem yonent yi soxna si nag buñ dee wax résultat yi mu def yi mu génne mën nañoo wax yoonu murit ndax Serigne Moussa Ka wax na dëgg dafa wax ni su du doon soxna jaara kenn du sampi daara waxna na dëgg li nekk ci Serigne Touba donte ni ak may la gu bari goo xam ni am na ci waaye lu ci bari nag soxna si moo ko def ci moom ndax waajuru baax dafa yar sëriñ bi dadaa daj soxna si dadaa dajale ak njabootam di leen wax ni leen nit ñu njëkk ña gaa yu baax ñu njëkk ña dañ daa def mooy wéetal seen boroom dañ daa def mooy di xool seen kiimaani boroom ngir di ci wettalikoo ngir di ko fàttaliku gaa ñu baax ña dañ daa naafila guddi dañ daa taxaw di naafila wax nañu ni sëriñ bi sëriñ Bachiru nettali na ni ci waxtu wu teel a teel a teel njëkk muy dal jàng alxuraan ci tàmbali ci taxaw guddi di naafila waaye booba sax dawul tari dara ci lu ñu xam loolu nga gis ni kon dogu googu ak pas-pas boobu moo ko ko defal ci ay waxam rek nga gis ni mujj na sax soxna si jaaxale ci loolu ngir kii nga xam ne dalagul jàng ci saayir tàmbulee tàmbulee eh, tàmbulee tam tàmbulee taxaw guddi di naafila waaye foofu yi ñu mën a jàngat nag sax ni soxna si suñ borom da koo def exemple boo xam ni war nañuy royee ci moom bari sutura li tax mooy teel naa xam Serigne Touba ki mu doon teel naa nemmiku ci moom lu bari waaye dafa am sutura am dancukaayu biir moo tax lu bari kenn xamu ko ci moom ngir yu bari bari waa na nit ku baax di di gane àdduna ci kenn wax gumu mu mën a wax wala ñàkk gu mu mën a ñàkk denc secret tax ba kooku wanaat ko gannaaw daal di teel a àddina waaye moom de njukkal yi ñu ko war a delloo bari na waaye war nañ koo delloo njukkal ci sutura si mu am ak mën a denc gu mu mën a denc ba tax Serigne Touba mii nga xam ni ñi mu jëriñ ñëpp burutoon loolee mu mën a denc secret sallahu kon di di di di di ñun ñëpp sawara la ñu jëm loolu nag loolu nag di lu lu kiimaane loo xam ni tax na ñu war saa yu nekk ñuy delloo njukkal soxna si ndax li mu nu defal bu bu dencutoon secret Serigne Touba mën naa mën na faa jugee donte ne dina mën naa feeñaat faneen waaye mën naa juge ci moom mën naa juge ci moom bari waa nitu yàlla lu muy ñëw ci nit mu ñàkk gu mu mën a ñàkk dañ secret moo tax jigéen ku war a am sekere la ku war a bëri sutura la ndax bari waana ngay dégg ku naan sama doom nangam damaa jaaxle ci moom ndax nangam nit jigéen dafa war a xàmmee ràññee bu gisee ci doomam loo xam ne wóor na ko ni kiimaanu yàlla la mu koy denc di ko nëbbu ngir kooko mën a gudd fan waaye saa bu koy tasaare di ko wax dana tax nit kooku nitu yàlla kooku daal di koy wanaat gannaaw loolu la ci dañ ci war a bàyyi xel soxna yi da ci bàyyi xel góor yi war na am sutura waaye jigéen a raw ndax jigéen école la ab denc la kon loolu amel nañ ci njukkal lu rëy soxna si ci war koo sant guñ ko amel ndax bu denc doon secret bi duñu Serigne Touba Xaadim Rasul nii mu dimbalee shaafihan li xaw mi kon du am irham jami al wara nii mu ñu dimbalee nii mu ñu melal nii mu ñu defal kon du am kon war nañ cee bàyyi xel bu baax loolu it ñu war cee mën a jàngatee ndax teel a ràññikuk sëriñ bi sëriñ bi daan wax daanañ wax ne soxna si bu ko mësaa yor donte dafay romb wala mu nar a jaar ci mbedd moo xam ni soxna si ci lu mënta ñàkk la daa génn bu masaana nar a jaar foo xam ni dafay dafay da da nuru ay mooy dafa am mooy ay tëgg wala ay yu mel noonu ci yooyu jamono sëñ bi daa bajantu yëngatu yëngatu bu tara tara tar ba soxna si wàññiku jaar waneen yoon mu dooga sañ mu daal di doog a dal ba mujj gi yëngatu tar lay def ba ba lu kiimaane lool yu bari it mu nemmiku ko ci moom teel ko nemmiku mosu koo nettali mosu koo wane mosu koo wax waaye da koo dencoon ci biiram bi mu teelee xam ni Serigne Touba am na lu ko suñ borom nammal am na lu ko defal loo xam ne wuute na ak daa ñëw kon loolu lu jigéen ñi war a bàyyi xel la soxna Ndiaye Mbacke it doon ko jàmbaare moom liñ ci war a gën a bàyyi xel war ko ca jàngate it bokk na ci soxna si bala maa ñëw ci ni mu taxawoo soxna jaara ni mu ko indee si kër sëñ Maam Mor Anta Sali li may njëkk xamle mooy ginnaaw bu ko yaree yarub diine moom dafa ni ñëwee sëñ Maam Mor Anta Sali rek jigéen ñi dañ ci war di bàyyi xel histoire da ko war di bind ñu koy jàngalee ñëpp bàyyi ci xel ndax loolu jafewul ta ku bàyyi xel yàlla rek moo ko war a man mooy moom Serigne Maam Mor Anta Sali dafa waroon a am soxna suñ ko waroon jox moom muy jigéenu Serigne Maam Mor Sali ndax baayam ak Serigne maam Balla Aïssa ñoo bokk benn baay te mooy maam Mahram mu wax ni ñu ni ñu ni ko moom lañ may ci li ñuy wax jamono yi njëkkee moom maam Soxna Anta Njaay mu war a wàcce soxna si ñu ko war a wàcce nag ñu dem ba bis biñ ko war a wàcce soxna si daal di famm ñu ni soxna si léegi daal ñëwatul ñu ni comme sëriñ Mamadou Anta Sali day kilifa te kilifa kenn mënu ko wax dara ba noppi bàyyi ko famm ko kon nañu daal di ñu wax ak sëriñ soxna Anta Ndiaye ni ko léegi ginnaaw sab sëñ Mamadou Anta Sali sab jigéen la ab jigéenam nga te mën na laa denc dañoo bëggoon te kilifa kenn du ko war dañoo bëggoon ñu daal di lay muur nga daal di dugg ci néeg bi toog fi liggéeyal sa boroom biñ ko ko waxee mu daal di d'accord loolu bu doon jamono ji koo ko fi wax ñu ci ëpp danaan la man dinaa def loolu man may wàcceeb seet ñu naa ma dañ lay far muur nga sëy du ma ko def. man sëy sama morom bi dañ may reetaan sama nangam sama nangam di xool nit ñi te fekk yàlla rek la war a bàyyi xel waaye soxna si bàyyi gu mu bàyyi woon yàlla xel ak dëgmal gu mu dëgmaloon lu dul ngërëmul soxla wu ko moo tax mu man loolu loolu ab bind la ab la bu ñu war a jël di ko bàyyi xel saa yu nekk moom soxna si effort boobu. gannaaw it bi mu njëkkee ci Serigne Mamadou Anta Sali dem fa bi nga xamee ni toog na fa ab diir yaroo ci kanam soxna aswaalu Mbàkke bi nga xamee ni soxna si ma doon waxtaanee ma doon wax léegi muy maam soxna jaara toll na ci war a dem kër soxna Anta Ndiaye Mbàkke moo ko gis wax suñ maam ren sel na ko jël ngir yéenewu ko ci kenn kudul mu nekk ci wetam rek di liggéeyal yàlla ndax xam na ni bu nekkee ci wetam ak soññ lay doon ci moom xam na bu nekkee ci wetam da koy dimbali ndax xam na ñoo bokk wenn xeetu yariin wuñ leen yar moo tax jigéen ginnaaw bu xamee ni eh, mënta ñàkk am ku ko ku muy bokkal di liggéey koo xam ni ku muy bokkal di liggéey ci kër jigéen bu xamee loolu war naa ut ku mu déggal ay jikko ku mu bokkal diine ku mu bokkal pas-pas ngir teel koo jooyal borom këram mu man koo jël saay bu ca tollee loolu nag ku bàyyi xel yàlla moo ko man mu mu sëñ ma waroon seli sax da ko waxoon ni ko man de awma lu ma ko jëlee daa mujj jaay ay takkaayam te loolu xam nañ jamono yooyu loolu yëmbul mu jaay ko daal koy jox sëriñ Mamadou Anta Sali ngir mu mën a jëli soxna si andi ko bokk na ci effort bi mu defaat mooy soxna Anta Ndiaye Mbacke kon lépp lu ab murit jëf am na ci pourcentage ndax suñ borom dafa wax ko xàll yoonu bu baax ba ilaa yawmi diin bépp yiw bu ci rote da cee am ay yiw te gannaaw sababu saayir bi ci ñëwug soxna si ci kër sëriñ Mamadou Anta Sali ci moom la jaare ba gane addina sëriñ bi jaare ci ak mboolem li mu dimbalee addina ak mboolem taalibe yi ni ñu ajee ci moom ak mboolem jaamu yàlla yi ñuy def ci seen pësteef ci seen dogu ci seen joxe lépp lu lu ci nit mën a def na la wóor ni yiw woowa nga def soxna Anta Ndiaye Mbacke am na ci pourcentage buy dellu ci moom. ndax ni nga xamee ni ku xàll yoonu bon ku ne wala yawans billah lépp lu ca xewat wala lu ca nit royee wala nu ko nit def danga ci am lu la cay fekk yàlla nu ci yàlla noonu la la suñu borom defee ku xàll yoon bu baax sababu sababu yu jaare ci yow ba mu am lu ca mën a xewati loola dan da da ci am mi ngi mel ni saxaaba yi nga xam ne ñoo xeexaloon lislaam ba mu taxaw ku mën a jëfati benn jëf ci lislaam danañ ci am aw yow kon jëf ju baax loolu lay jariñ ndax day law ay nit di ci roy yiw yi di la fekk ba faw soxna Afsatu Jaxate it sëriñ soxna Maam Anta Njaay moo ko andi ci kër sëriñ Maam Mor Anta Sali kon loolu dikk soxna su bàyyi woon xel boromam soxna su ragaloon yàlla soxna soo xam ni soxna jaara moo ko muur ngir moom suñ borom day nëbbu ñenn ñi feeñal ñenn ñi waaye moom ku jàmbaare la koo xam ni ku ñu war a bàyyi xel la ku taarix war a bind la ku ñu war a jël ci moom ay bind la. gannaaw loolu it gannaaw soxna si noonu mu mel ni ma waxoon léegi waxtaanee ko ci mbir yu bari dafay jafe bari na xisa yu nettali ci moom am na waaye dafa bëri loo xam ni mënee su ko waxtaanee ci biiram maanaam dafa bari ci biir soxna si loo xam ni ginnaaw dafa sori ci ñun nak suñu gannaaw pas-pas neexut a waxtaanee kon dañuy ñëw rek ci taarixu dëkk bi dëkk bi bokk na ci liñ ci war a njëkk a jàngate mooy biñ fay denc soxna soxna si juróom-benn weer la am ci dëkk boobu daal di génn àddina lan moo ko fa andi woon Maba Jaxu Ba da xare ci dëkk bu ñuy wax Pawaskatu ba muy xare it daa xamoon ni su fekkee ni ku ñuy wax ku ñuy wax buur siin waaye bokkut buur siin bi seereeloon Sëñ Tuubaa moom la doon xareel bi muy xareek moom it xamoon na ni saa bu buur siin su leen notee faaw mu jàll ci sëriñ si moo tax mu mu doon def fu mu nekk daal di jël sëriñ soso daal leen di jegeele boppam duñ bokk ci benn dëkk buñ ne waaye dañ koy jege ngir mu man leen a yiiraale man leen a aaraale moo taxoon sëriñ Maam Mor Anta Sali ñëw Poroxaan ngir daal di mën a jege Maba Jaxu Ba ngir mën ko dimbaliwaale bi nga xamee ni ñëw na fa ànd ak sëriñ bu soobe ak soxna jaara ak ñenn ci ñim àndaloon dañ nañ fa coono yu métte métte métte métte yu tara tara tara tar sëriñ bu soobe am na sax bayit yum ci way yoo xam ne nee na wax na ca biir ni ak ngunul ganaar lañ ko dugaloon ngunul ganaar lañ ko dugaloon la la fanaan ci dëkk boobu ñu wax mbayeen fa la fanaan nee boole ko xiif boole ko xiif bu metti boole ko mbooleem yi nga xam ni nekk na ci ci ay xeetu metti mu boole ko moom kon ay coono yu metti lañ fa daj waaye diggante boobu rek soxna si liggéey na fa liggéey bu rëy ci biir dëkk boobu te juróom benn weer la fa def kon loolu liñ ci war a mën a jàngate mooy barke rek moo am solo fanweeri at ak ñett la dund fanweeri fanweeri at ak ñaar yëpp mi ngi ko dunde ci faneen fu bokkut ak dëkk boobu fanweeri at ak ñaar ak juróom-benn weer mi ngi ko dundee ci beneen dëkk juróom-benn weer képp la dund ci dëkk boobu te tey bañ fa bam fa génnee àddina it booba tuxal nit yombut jëlee ko dëkk jëmee ko dëkk bu sori waaye booba ndax warukaay yombul yoon yi fatt na te déplacé nit ku faatu dawul am ndax boobu moyen amul ngir déplacer nit léegi moo taxoon ñu denc ko foofu ci Porokhane biñ ko fa dencee it wan ko gannaaw jamono bu njëkk daana bëri fuñ denc nit ba bàmmeel ba réer ndax buñ fa xasee jugee ñëw fa daawul yomb bëgg a dem fenn dem fa daawul yomb warukaay yombul léegi bañ ko fa dencee nag tax na mu dem a dem ba mel ni barab ba daa réer ba kenn xamatu ko bi nga xamee ni toog nañ ba jamono yi nga xam ni sëriñ baa ngi nekk njaareem la woo bis sëriñ Muhammadul Bachir radiyallahu anhu ni ko sa maam de fi mu nii dafa soxla wettal ñëwal nga wettali ji ko daal di koy tegtal barab ba ni ko boo demee barab sangam nga daal di jox juróom ña nangami jéego ci sa wetu ndeyjoor nga tibb suuf ci sa loxol ndeyjoor nga dox nangami jéego ci sa wetu càmmoñ nga tibb suuf ci sa loxol càmmoñ waaye bul boore ñaari suuf yi bi nga xamee ni def na noonu ci la ko ci ci la ko andil sëriñ bi daane ko nga andil ma ñaari suuf bi nga ko andee sëriñ bi bi suuf si nekk ci loxol càmmoñam daane ko samaam tëddul fii daal di sànni si loolu nga mën cee seetlu kii man sëriñ Tuubaa kon xeeñtu na suuf si ba xam fu soxna si tëdd xam na suuf si mu tëdd loolu mbirum biir la moo xam ne moo ko xam moom sëriñ bi mu foon suuf si si loxol ndey joram daane ko samaam de fii la tëdd sëriñ Bachirou daal di téye suuf soosu bi nga xamee ni ginnaaw sëriñ bi waxoon na ko sama soxla nu wettal demal nga wettali ji ko gannaaw boobu nag diggante boobu àll bi fàttaan na fi ba bàmmeel bi kenn xàmmetul fu mu nekk. ñu toog ba jamono yi 1951 nga xam ne sëriñ bi jóge na fa caatu vint 1927 bañ toog lu war a ëpp ñaar fanweeri at daanaka fanweeri at ndax 27 ba 51. mat na mat na ñaar fukki at waaw ñaar fukki at ak lu teg ci la ci 1951 ci la sëñ Bassirou delluwaat Porokhane bi mu fa delloo it daal di dem ci ñooro eh, bi mu ñëwee ñooro fekk na fa sëriñ boo xam ni eh, tukkulóor la woon daal di koy laaj ndax xamati nga fekk ba mu fay njëkk a ñëw kooku dafa bokkoon ci ñi ci ñi moom mu ne ko ndax xamati nga bàmmeel ba fu mu nekk barab ba fu mu ne waaye sëñ Basiru gisutoon dëgg-dëgg barab bi waaye dafa xamoon ci tund wi mu nekk bi nga xamee ni ñëw na ñëw na ñëw na ñooro ànd moom mu ne ko waaw ñooro ak poroxaan dix kilomètres la wala huit kilomètres la huit kilomètres la waaye keroog wax nañ ni xëye nañ ñooro bi ñëw poroxaan ci suba gi lañ xëye ñooro waaye bi ñuy agsi poroxaan jant bi sono ndax àll bu fatt kon liñ ci mën a jëlee man ko cee jàngate mooy kon àll bi fattoon na taraj mujj gi maanaam fatt na àll boo xam ne fatt lool ba nga xam ne jaar fenn dem mënta ne waaye ba ñuy jógee ñooro sax ñu yoroon ay ay ay ay jaasi ak ay jumtukaay yoo xam ni dañ ci doon dagg ay ay garab ngir xàll aw yoon ngir xàmmee ko bi ñu agsee jant bi soo seen Basiru jël suuf soosu ko Sëriñ Tuubaa joxoon nga xam ne dencoon na ko mu comparé ñaari suuf xam ne fii la mu daal di mu daal di bàyyi teg foofu suuf si daal di defar daat bàmmeel bi defaraat ko ba mu kii mu daal di mu daal di koy mu daal di ànd ku ñuy wax mbooloo moomu ku ñu wax sëriñ maam am na lu mat juróom ñu mu àndaloon wala ñeneen sax ñu ëpp juróom waaye ki ma ci gën a ràññee aw turam mooy sëriñ Mouhamadou Fall naar la woon boo xam ni bu ku jàng histoire gànnaar xam nga ni Serigne Touba moom lañ doon wax moom la soloon alxuraan ca gànnaar par ñaar fukki hizb mu wax Serigne Mamadou Fall toog mu wax naar boobu mu wax kim mu àndaloon jógee Nioro ni ko dama bëgg nga daal di dem dellu ndax ñun fii la ñuy fanaan bi ko ko waxee sëñ boobu daal ne ko kon xanaa ma dem andi ay xéwal ak mu ni ko jaruko sëñ boobu dem yërëm sëriñ Bachir ci wet gu mu wet foofu tax mu andi yeneen nit ngir ñu wettali ko ngir fanaan sëñ Basiru ni ko xam naa li ma yéene xam na sa yéene ci man waaye fii man yàlla doy na ma fi wéttal ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak Serigne Touba demal rek toog bi mu demee mu wax Serigne Mamadou Fall moomu nga xam mooy naar bi Serigne Touba soloon alquran daan ni ko toogal ci sama gannaaw di tari alquran tabul nelaw am keneen ku mu wax ni ko toogal sama ndeyjoor di jàng xasida ak tudd yàlla tabul nelaw am ku mu wax toogal sama kanam tey tudd am ku mu wax toogal sama wet tey julli ak naafile tabul nelaw kenn ku ne mu am lu la defloo ni la toogal tabul nelaw mu fanaan foofa bi nga xamee ni ci déwén sa dellu si na it 1952 mu tàmbali màggal ki nu mu daa def mooy da daa wër dëkk bi di dem ci ay soosa yu nekkoon foofu kenn ku ne mu jël ay nit ñoo xam ne booba mën a jëlee nit fu dëkk bu sori indi ko ba foofu sax jafe na bu leen jëlee ci otoom ñëw indi leen ñu toog foofa di wàcce alxuraan di ko jàng mu leen di berndeel noonu la ko daa màggale moom Serigne Bassirou bi nga xamee ni daana ko def noonu at mu jot muy wàcc ay kaamil di def fi bernde ba waaye woote gu doon màggal gi ba 1866 ci la ci la ci la ci la mool ay mool nag ngir tabax ba bi ngir ni war nañ koo tabax bi mu ko moolee tam ba tàmbali tabax bi ci la génn àddina moom Serigne Bassirou wax nañu ni bi nga xamee ni génn na àddina àllarba gi ci topp rek. ci la sëriñ Moustapha moom sëriñ Bassirou daal di dal di daal woote mboole mag ñu bari ci ñu ne woon sëriñ Bassirou ba mu ne woye ñoom mu ni leen ki fi ne dafa jëf nu gis mu naal ba fi yéene ba li mu jëf ñu gis def des na ko ko sàmmal ba dara du ci yàqu li mu naal bafi fi dees na ko ko àggaleel li mu yéene ba fi dees na ko ko defal daal di nag tàmbali liggéeyu nag barab ba tàmbali ko liggéey waaye at mu jot muy ànd ak mboolem taalibe yi di dem di fa màggal di wàcc ay kaamil di def bernde tëral ko nag ci anam goo xam ni fekk sëriñ Bachirou guddi googu mu fanaanoon foofu daa wax sëriñ Mamadou Fall ni ko fii de fës naa yéene mu mel ni Touba sëriñ Mamadou Fall dinaar boobu wax ko ni ko ndem wax nga ko rek loolu dina am ndem wax nga ko rek loolu dina am. mu gannaaw bi avant muy génn àddina wax na sëriñ Moustapha woo ko mu ñëw mu ni ko poroxaan turam tu poroxaan tukkuloor la tuddoon sëriñ Bachir moo woo sëriñ Moustapha ni ko demal yabaloon ko ñooro ci ñi nga xam ne ñoo fa nekkaloon uh, wàllu administration mu wax la ni leen nañ dindi tukkuloor gi te def ci poroxaan rek def ko village def ko ab village boo xam ni turu eh, ci turu soxna si lañ koy def ñu daal di koy def village def ko village tuddee ko benn village boo xam ni euh, Porokhane lañ ko tuddee kon dëkk bi deewoon na lu ko dundalaat mooy barabu soxna si loolu kii man la rëy goo xam ni war nañ koy fàttaliku war nañ cee bind ay téere bind ci ay livre ñi nga xam ne xam nañ xam-xam boobu ndax jàpp naa ni bu ko bu ko occidentaux yi moomoon bu ko tubaab yi moomoon danañ ko valoriser ci anam goo xam ni bàmmeel boo xam ni ab dëkk dee na benn bammel koo xam ne dund waaw kooku bu doon dund kon nu muy def ki dundatul ci saayir nga xam ni bammeelam moo dëkkil ab dëkk loolu kon kii man la loolu ñu war a bàyyi xel la xam ne jaamu yàlla képp moo am solo ci loolu la ko tudde loolu si suñu faa di wéyal màggal gi ni mu ko organiser moo gën a kii maane nag ci nim nim nim nim nim binde poroxaan maanaam ni mu ko lotisé nga xam ni dafa def résidence bu mag boo xam ni mboolem njabootu sëñ Tuubaa kenn ku ne da fay am kër ci biir gannaaw loolu it mboolem njabootu sëriñ bi ku góor ak jigéen ñëpp mu may leen fa kër ngir dundalaat dëkk bi waaye la ci njëkk mu def fa franco arab fexe na ba mu am franco arab fexe ba mu am école nasaraan fexe ba mu am ndox am courant moom sëñ Moustapha waaye la gën a kiimaane mooy dafa xalaat ni soxna si bu fi doon dund ba tey ab jàngalekat lay doon. ab jàngalekat lay doon bu doon dund ba léegi ab jàngalekat lay doon te bu dee jàngale ña muy njëkk a jàngal mooy ay turandoom mu kon naa sanc daara joo xam ni donte ni naal bi mën naa àgg ba génn ci ay turandoom waaye naa ko njëkkee nag ci ay turandoom kon daane ki daara ji ñi ci soxla mooy ñi tudd maam jaara nga xam ne 2000 personnes la ci la ci la ci la ci préparé woon ngir ngir ñu war a nekk ci daara ji ndax boobu daayira maam Ndiare ñaari junni lañ woon mooy deux mil deux mille lañ woon daayira maam Ndiare ñaari junni daayira la woon waaye léegi àgg na ci ñaari junni ak ñeenti téeméer àgg na ci mu ni kon léegi sax kon daara ji ñu ngi ko war a xayma ci ñaari junni ak ñeenti téeméeri maam Ndiara waaye àggagu ci ba tey ndax euh, wàllu moyen ak yéene ji moo waaye ba tey lu bari des na ci waaye teewul ba léegi mokkal ga fa am ci alxuraan. kii man la ak jàng gañ fay jàng liggéey mokkal gu set mokkal gu leer ku dugg ci internet bi wala nga am ab gëstu danga nga dégg alxuraan jiñ doon tari ñoom soxna yooyu muy ay ñoo xam ne ay ndaw lañ bari wañ fa jugee dañoo wéyal seenu njàng mokkal alxuraan waaye bind kaamil ci anam gu rafet loolu di wane ni liggéeyu soxna si sëriñ musafa def na ci effort bu rëy sëriñ Mountakha ataalallahu baqaahu yàlla na suñu borom gën a sàmm ak dundam yàlla na yàlla gën a desal jëmm jooju suñu borom gën koo kàttanal ndax wax na ni Serigne Moustapha waxu la réaliser daara ji xalaat bi mu ci am rek xalaat bi nee na loolu rek tawféexu suñu borom da cee dugg tawféexu suñ boroom ndax eh, ni mu ko xalaate kon la Serigne Bachir waxoon ni Poroxaan bëgg naa mu mel ni tuba loola kat ma ngi fay tàmbalee am ndax ab dëkk. saa bu amee ab marché ñu cay nduggi di togg mu am jumaa ñu cay julli ak juma ka julli mm, farata mu am courant ñuy mën a niit guddeeg bëccëg amu yoon wuñ mën a dem loola kat wane na ni kon dëkk boobu kat ma nga jëm ci bokk ci dëkk yu mag yi loolu mooy liy fonde dëkk mu am nag école franco arabe am daara ñuy jànge alxuraan am fu ñuy jàngalee nasaraan lépp luy am kon kon xale bi bu juddoo lu mu bëgg mooy day am poste de santé fu mu war a fajoo ñu war ko toppatoo wér gu yaramam bu dëgëree boo bu dee ku ku bëgg a jàng nasaraan la mu dem jàngi nasaraan bu dee ku bëgg a jàng alxuraan la mu dem jàng alxuraan ci daara bu dee ku war a jàng xam-xam la am na fa bu dee koo xam ne day yenu soom dem ca marché ba am na fa bu dee day julli iit wala muy julli ajjuma am na fa bu dee julli farata am na fa ndax am na ay bërëb yuñ ko utal tabax nañ ko it defal nañ ko ay yoon loolu kon am na li am ci dëkk yu mag yi am na fa donte ni ñi ngi mbébét bëgg mu doon ci ville yi gën a mag te jàpp nañ ni dana dem ba bokk ci ville yi gën a mag ci senegal loolu kon ñu war cee jëlee ay bind jëlee jël jëlee ci ay bind yoo xam ni moom la ñuy jàngal fàttaliku soxna si nag ci li may daanelee mooy fàttaliku soxna si lu ñu war a jàngal fàttaliku ko ku dund fanweer at ak ñett saa bu ñu waxee soxna si nag xel yu bari dem ci jigéen waaye góor jigéen ñoo war a jël ay bind ci moom ndax royukaay yi dañuy jaawale ñaar model ak idole nit balaa nekk idole de modèle ba noppi modèle mooy ki nga ki nga ki nga bëgg di ko roy lu mu def nga roy ko idole mooy ki ñi barkeelu ci moom soxna si dañuy barkeelu ci moom waaye moom euh, passé na jéggi jéggi na ab royteef waaye teewul des ko war a roy ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la suñu borom wax ñu roy ko kon des ko war a roy léegi nag li war a jël ay bind ci moom mooy kii nga xam ni moo woon ci dëkk bu mel noonu dund ci at yu gàtt yi nga xam ni gàtt na ci saayir kon suñu demee ba di ko taxawal bis bu mel nii bis bi nga xam ni mboolem adduna bi yëpp dañuy àndandoo di ca dem suñu borom kat dajale mbooloo mu toll noonu di ko yóbbu ci ñoo xam ne jëmuñ fenn. nit ñi kat dañoo am xel nit ñi duñ ay jaahil duñ dem fu dara nekkut te loolu suñu borom sax da ko dul seetaan kon bu ñuy dem ci foofu kii dem lu mu war a def daa war a am ndab lu set lum mu war a taataane bañ ko jàppee foo xam ni day dem jàpp ni kom weeru koor dañuy tëj yu bon yi bu bu bu jàllee ñu ubbiwaat ko déedéet maanaam day jàpp ni buñ nee ko ki fi fanweeri at ñett lay dund fa koy xalaatee moom boo moytul am na fanweeri at ñett lan la defagul ci ak dundam man lu ma defagul buñ ma waxee soxna si dadaa julli ma fexe ba ma àggee saxal julli juróom bu ma demee ba mu yàgg man di naafila buñ ma waxee daa jàng alxuraan may góorgóorlu donte jàng fatiha par bis di ko jàng li ma mën ci alxuraan ngir jéem koo royee soxna su baax soosu buñ nee ma dadaa déggal këram dadaa déggal borom këram dadaa déggal wa sëriñam danaa déggal da danaa liggéeyal ñi mu nekk bu ma àggee jéem a bañ a amati noonu ñi may tuddal ay wujj sax ma fexe ba di leen liggéeyal ngir sàkku ngërëmul yàlla buñ ma waxee daa jàng alxuraan ma fexe loolu daa naafila guddi ma fexe loolu buñ ma waxee daa daa amoon kersa daa bëri woon daaw lor nit ci làmmiñam daaw ko lor ci ay bëtam daaw ko lor ci ay tànkam daaw ko lor ci noppam ma fexe loolu lépp mu nekk ci man tama jéem cee jël benn jikko jikkoo ko ba déwén mën naa am suñu borom taw fee xel mu nekk ci man ba bu ma dellu man cee am man cee am beneen jikko bu ma jëlaat ngir jariñoo ko beneen jamono su boobaa mën naa dema dem ba mboolem xeeti jikko yu bari nekk ci nit ki te taw yox suñu borom lay doon ndax benn par benn la koy jël kon mbaax suñ ko waxee doon woon démb rek la amoon ñàkk tey bu ñuy wax naan jigéen da dégg ku naan la jigéen ña baaxoon moom di ko askanale mbaax toujours mu koy askanale démb mbaax ba léegi mi ngi am mën naa tudd ay jigéen ñoo xam ne ba léegi seen mbaax ñoo gën ña woon wala jëf nañ lu tal ne jiitu woon jëf wala ñu baax ba ba dab leen ku ni soxna Marème moom Serigne Souhaïbou nga xam ne kenn gënu ko foo ko fekk day jàng alxuraan foo ko fekk ma nga toog mu ba saa boo gisee jëmm ja da lay fàttali njabootuk Serigne Touba gi nga xam ni newoon nañu fi soxna moom yi moom Serigne Abdoul Khader maa ngi ñaan suñu borom gën a dëgëral seen i taxawaay gën leen a dimbali. Euh, foo leen fekk dañuy yor ay kaamil di jàngal Alxuraan di lu baax bari kersa di di jaamu yàlla ñooñu euh, am Serigne Touba am na ci ay junni junni ñi làqu ak ñi feeñ kon jigéen ju baax yu ñu war a roy am na ba tey. bala ñoo wax sax soxna si nañu wax ñii di dund loola naan bu ñuy tudd Cheikh Ibrahima Fall di wax ne dañ ko war a roy Serigne Mouhamadul Mountakha mi ngi nii di dund yàlla na ko suñu borom gën a dëgëral te teg nañ suñu bët ci ay jëfam ci mboolem xeetu li muy digle ak aw doxinam kon ta loolu mooy doxinu murid saadiq dañ naan am naa gëléem ma nga gànnaar kenn du ko wax waaye Serigne Mountakha mi ngi nii di dund te li muy dund mooy ak taalibe gu sel mooy pas-pas bu ñëpp war a roy kon bala ñoo wax roy soxna soosu. dañoo war a soxna si yii ñu mujj a xam muy soxna may mii fi mujj di doomi Serigne Touba ak mboolem soxna yi dund ci jamono bi te mel melokaan yooyu nga xam ni ñoom la seen waajure meloon ak seen maam yooyu. kon mboolem yi ñu doon wax nee naa waxtaanee soxna si day lu jafe waaye dañ doon jéem ngir di jéem a fàttalikuwaat ay jëfam fàttalikuwaat ay jaar-jaaram ndax kat wa inda dikri saali saalihiina tanzilu rahma suñu borom daa wax ni boo leen dee fàttaliku gaa yu baax ñi yërm sama yërmande laa di wàccal ba keroog ngeen di noppi bëgg a barkeelu tax ñu koy fàttaliku ngir suñu fàttalikoo ni yëg rek ku baax la woon yëg ni ku yàlla defal tawféex la yëg ni ku suñ borom baaxe la yëg ni ku dond mbooleem jigéen ñu baax ña la yëg ni mooy ki gën ci jigéen ñi sayidatan li muhsinaat mariama foqati mooqinaata inda alladi lam yudrak kooku mooy soxna mariama jaariyatullahi mariama buso yàlla nu yàlla taas ci barkeb liggéeyam ba dimbali nu ba dimbali nu ci kii nga xam ne mooy sëriñ Tuubaa xaadimu rasul moom mi nga xam ni moom moom la mooy jëwriñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nu sunu borom boole ci ñi mi liggéeyloo ci liggéeyam bii ndax ku mu liggéeyloo jox lay jumtukaay liggéeyal la ko bàyyi la ndam li yàlla nu yàlla boole ci jam ñi muy gërëm ci àddina ak ci àllaaxira yàlla nu Sëriñ Tuubaa boole ci taalibeem yi nga xam ni ñoo ko gënal ci àddina ak ci àllaaxira di gërëm ñëpp waaye di sant tey xam ne li ma wax yéen a ma ko gën a xam waaye da di wax léeg daa am ñu ko yàlla binde wala ñu ko baaxoo di def waaye lu ko gën a fawxa lu ko gën a leer lu ko yéen a ma ko ëppale gën ma ko xam dàq ma ko wax waaye maa leen fa wuutu leen ko waxal lu ci jub ndimbalu yàlla la waaye lu ci dëng sama matadi la te xam ni ki ma doon waxtaanee moo jafee waxtaanee waaye ñuy ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar moom mi nga xam ne lislaam rekk ko ñor ñaan suñu borom gën a dëgëral taxawaayam ba yim yéene liggéey lislaam lépp mu àggale ko te mu def ci lu kawe njortam di leen sant den gërëm di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ni moo fi toogal Serigne Bachir di taxawee màggal gii yàlla na ko sunu borom gën a dëgëral taxawaayam sagob yoonu murid la sagob lislaam la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf. soxna Jaara jóg way fi ngeen seewey ñoo ma jëmal boppam soxna Jaara soxna Jaara fi desi di feeñaat te yaram wa de foofu ndaw soxna jaara bu gi soxna jaara soxna léegi tey duñu teew waayi nga te waayi nga te farax nga te foo nga kelu na fi des yàllal yàlla yàlla jox barke soxna jaara